asalaamaaleykum wa rahmatullah waa association ànd taxaw ñu di te yàlla rek a tax man la Ndeye faati Diop États-Unis fii ci Greensboro North Carolina Caroline du Nord maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di jiital ci nuyoo bi président Pape Niang sëñ Pape maa ngi leen nuyu di la ziar te di la ñaanal jàmm. di ñëwaat encore pour partager ak yow doom bi nga xam ne recevoir nañ ko tey nga xam ne waa Greensboro North na ñoo ko joxe pour jàppale association ànd taxawu ñi wéradi ca Sénégal te yàlla rekk a tax maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm wax dëgg yàlla di ñaanal waa Greensboro North Carolina ñoom ñi nga xamante ne bi ma defee appel bi ba léegi ku nekk fi nga nekk yaa ngi jënd ay produits yaa ngi jënd ay dàll yaa ngi jënd ay yére yaa ngi jënd lépp loo xam te yaakaar nga ne association bi dana ko soxla yaa ngi koy jënd fii dama ko indil pour ma mën koo yónnee association bi jàppale ñi nga xamante ne ñoo am feebaru xel yàlla gis na li ngeen liggéey ndax da ngeen jël nit ñi nga xamante ne seen kër waa kër yi dañ leen a bokkatoo leen ci kër gi génn leen ci biti waa mbedd mi ne leen bokkatoo leen ci société bi négligé leen yéen nag association bi daal di jug taxaw boole seen dërëm seen ñaar dërëm ak seen doole ne axa fu ñu jaar wan nit ñi ne leen ci as ci société bi la bokk te ci biir kër yi lañu war a dëkk nga leen di sang leen toppatoo di leen faj kon nag yal na leen yàlla fay ñu nag ñoo ngi sàkku ci yéen ñaan bi nga xam te ne wax dëgg yàlla waa Greensboro seen liggéey rafet na seen liggéey sell na am nañu yéene gu rëy pour jàppale association bi kon nag defal leen ay ñaan naa leen di gërëm yéen ñëpp di leen ziar te di leen ñaanal jàmm jërë ngeen jëf.